asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yow mi nga xam ne danga bëgg sa doom bu jigéen alquran jiitu ci dënnam ak yaru diine ba ëllëg fu mu mën di dem ak lu mu mën di jàng dara du ko mën a këf daara El Hadji Cheikh Niang indil na la solution di leen yëgal ne ubbi na daara joo xam ne jigéen ñi rek la ko jagleel mu nekkee fële ca ñàkkurab quartier abul abbas di daara ju ñuy mokkale alquran di fa xamee diine ci anam yu méngoo ak jamono ak nekkinu jigéen ku ci bëgg ay information mën nga def 33 867 72 06 wala 77 903 13 30 mbokk yi xam leen ne jigéen de moo di société ba képp koo xam ne sonn nga ci ak yaram ba mu jaar yoon mel na ni defar nga société te yar nag bi ci gën mooy yaru diina lislaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rabbi an yaxduruun mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu fas yéene dellu siwaat ci seen waxtaanu àjjuma comme niñ ko baaxoo di def tey nag ñu fas yéene waxtaane benn thème bu am solo boo xam ne alquran bëri na lu mu fi doon wax ci jamono ba muy wàcc te mu des fi ba léegi muy loo xam ne dana tax jullit bi sellal bu ci muccee dana tax mu sellal ak jullitam digganteem ak boroomam dara bañ ci nekkati muy li ñuy tuddee ak nifaq muy naafeq ci olof mooy hypocrisie muy loo xam ne incha allah danañ ci ñëw ci baat bi ñëw tamit ci alquran nan la ko définiré ak hadith yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw tamit seeni màndarga ci alquran nan la ko waxe ak tamit seeni màndarga ci hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lan moo teqale lan mooy différence ak nifaq wa riya diggante naafeq ak gistal lan moo leen teqale آه، نفاق نك في شريعة baat بلي li موي إظهار الإيمان وإبطال الكفر قال صاحب النهاية وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر, ويظهر إيمانه من نفاق mooy koo xam ne ci cosaan day feeñal ne jullit la dafa gëm yàlla waaye ci biir moom yéefar la jëfu yéefar lay def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee madinatul munawwara bëri na ñoo xam ne ñàkk pexe moo leen dugaloon ci lislaam ñooñu nag dañ daan taxaw lépp lu jullit yi di def ñu koy def waaye bu ñu weetee jëfu yéefar lañuy ñuy def bi yonent bi sallallahu wa sallam di dugg nag di dund ñooñu ay naafeq lañ leen tuddee woon ay munaafiqin waaye bi mu génnee àdduna zindiq lañ leen doon tuddee waaye maanaa bi benn la booy xool mu mel ni bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo xamaloon lépp ndax ab yonent dara du yiiru ci moom dara du nëbbu ci moom ba tax na mosoon na woo benn saxaaba jox ko liste naafeq yi nekk ci madinatul munawwara yépp saxaaba boobu saxaaba yépp xamoon nañ ne moom xam na naafeq yi ba tax na seydna omar ibnul xataab radiallahu anhu ci dëggoom ak ñàkk wóolu e, jëfam ndax jullit loo mën di jëf ak loo mën di jaamu yàlla waroo ci gis sa bopp moo taxoon daan na sonn lool ci saxaaba boobu ngir mu wax ko ba xam moom bokkul ci naafeq yi ak nim dëggoo moom na Omar ba saxaaba bi na ko yow bokkoo ci xelam soog a xaw a dal tuuti kon loolu mat na bàyyi xel ba tax na ku génnaan àdduna sax buñ ko daan jullee ndax euh, julleeg naa feq jullit waru ci teew buñ ko xamee buñ gisee saxaaba boobu dem rek danañ xam ne kii ñuy jullee daal jullit la du naa feq waaye bu dul loolu ñoom duñu dem ñoom sahaaba yi kon ci jamono boobu moo nekkoon feeñal kéefar feeñal ak gëm yàlla ba pare nëbbu kéefar ba tey nag képp koo xam ne yaa ngi jaamu yàlla di julli di def jaamu yàlla yi ci zaahir mais di def jëfu yéefar ci suuf loo xam ne yàlla daf ko tere <coughs> te garaawaloo ko boo ko garaawalul rek su boobaa loola mën naa bokk mën naa dugal nit ci nifaaq ci naafeq mu mel ni kon boroom xam-xam yi séddale nañ ko ñaari xaaj moom naafeq bu ñuy wax nifaaqun akbar te mooy bi nga xam ne yaxruju min al milla ndax lahu taalluqun bil qalb fa yakunu saaxibuhu muzharan lil iman wa mubtinan lil kufr mooy bu mag bi bu njëkk bi mooy bu mag bi nga xam ne mën na génne nit ci lislaam ndax lan xol daf cee am wàll ndax gëm yàlla ci xol lay nekk bu fekkee gëm yàlla gi moom dafa feeñ rek yaa ngi koy woote ci biir nit ñi mais nekkul sa xol leneen moo ci nekk su boobaa kooku mën na génne nit mën na def nit yéefar yal nañ ci yàlla musal boobu baaxul bu ñaareel bi nag mooy bi nga xam ne bu ndaw la النفاق الأصغر وهو ما تعلق بالعمل والجوارح ويسمى كذلك بالنفاق العملي وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور موي بو نيارال بي موي بيغا خامني دا فا اجو تي جيف يي مغا خامني تي جيف ظاهري لا اجو تي لامي لا غاي واخ بووتك لا غاي جيف ولا لا غا گم كوكو دنج لاي ليم نافق waaye bokkul ci naafeq boo xam ne dalay yóbbu ci kéefar ki noonu ki nga xam ne tamit la muy jëf <clears throat> gëmu ko waaye dafa am euh, lu mu ca jublu loo xam ne bokkul ak euh, la mu bëgg maanaam bokkul ak euh, maanaam la mu gëmloo doom aadama yi kooku tamit su boobaa naafeq lañ koy wax waaye bokkul ak bële ba léegi <clears throat> hakaza koku lañuy tuddé kon ar nifaqul amali moy nafiq bo xamné ci jëf la aju ak ci wax ci la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon hadith bi di ñëw ne arbaatu arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fihi wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq aw khisla hatta yadaaha nena na isa tumina xaana wa ida xaddasa kazaba wa ida ahada gadara wa ida xaasama fajara mu ne ñeent a ngi nii yoo xam ne képp koo xam ne am nga ci wala bokk nga ci ñeent yi nee na am nga benn ci jikkoy naafeq nee na képp koo ne am nga ci benn am nga benn ci jikkoy naafeq <clears throat> ba baa nga koy bàyyi ñu ne ko mooy yan ak yan mu ne mooy koo xam ne buñ ko wóoloo ci dara mu wor mu def nu wuuteeg lañ ko wóoloo waaye wala koo xam ne saa bu waxee rek fen koo xam ne tàmmal na làmmiñam wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg ngir ay intérêt bu menacé woo mu wax lu dëgg wax lu dul dëgg ngir faj aajoom wala lu mu ca mën di jublu kooku am na benn ci màndargaay naa feq ni ki noonu tamit koo xam ne bu kóllëranteeg nit woor ko bu seqeeg nit kóllëre du ko respecté du ko respecté dana ko woor walla mu manquil ca dara du ko matal daal kooku tamit am na màndarga ci naafeq koo xam ne bu xuloo daal di kàccoor koo xam ne bu xuloo kàccoor mooy bu xuloo dana sosal kam yu xuloog wala mu jéem koo yàq wala mu defal def ko loo xam ne daal ëpp na ci ak kàccoor wala ci caacaay kooku tamit am na màndarga ci naafeq hakaza kon ñeent yooyu ci màndargay naafeq la bokk képp ku ci am euh, kooku am na màndarga naafeq te teewul nag nekk naafeq waaye am nga ci màndarga kooku xadis boobu ñi solo xadis te ñu wóolu seen xadis na wér na kon wér na ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge borom xam-xam yi nag ñu jàngat xadis bi ñu nekkoon tàmbali maa naafeq mi ngi commencé ci fen wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ndax jullit dana njaaloo mu ne waaw donte jamono bi muy njaaloo sax nekkatul jullit bu fa jógee danañ ko solalaat yéreeb jullit ba wala déet foofu la wax ji nekk muy lu garaaw kon ñu ne ko ndax jullit dana naan sàngara mu ne mën na juum naan sàngara bànneexu bakkanam wala seytaane mën ko mu naan sàngara waaye bu ko yàlla dimbalee mën na caa tuub waaye mën na caa labit nag ndax sàngara mooy ndeyu ñaawtee fii ñu ne ko ndax jullit dana def nangam mu toppee noonu ci yu boni bañ egsi ci fen ñu ne ko ndax jullit dana fen mu ne déedéet jullit du fen kon képp kuy fen rek sa jullit war nga koo xool wax lu dul dëgg ak anam boo ko mën di jublu nag ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne fen wuy defar baax na fen wuy defar mooy lan fen yépp xaram alquran daf ne woy lu ñu yawma isin lil mukazzibin fen yépp moo xaram amul fen wuy defar kon ndax bu fen wuy defar ndax dagan na wala daganul indiwoo ci aaya al munoo ci indi aaya alquran munoo ci indi xadis bu wér ci ne fen wuy defar am na kon nag baaxul waaw ndax buñ ne fen wuy defar am na ku nekk rek am na fen woo xam ne boo ko fenee mu defaral la sa mbir hakaza kon loolu wax bu yàqul niki noonu tamit ñu ne kon ci fan lay commencer ak woor woor jàmbu nit seq ak moom dara bu pare mel ni ku ko xamul ak yu mel noonu ndax bépp jëkk boo xam ne dafa jege ni faax rek alquran daf koy tere xadis yonent bi sallallahu alayhi daf koy tere da ngeen ko xam ci kanam waxtaan ci biir waxtaan bi nee na tamit bokk na ci yi nga xam ne fala la ni faax di commencé mooy wuute rendez-vous ñàkk respecté rendez Euh, fixé ak rendi bu vous heure sàngam ne ko 10 heures ñëw midi kooku ci nifaax la bokk wala nga ne ko 10 heures ñëw 13 heures kooku ci nifaax la bokk ñàkk respecté heure waaw ñun nag africain dem nañ ba sax am lu ñuy tuddee temps africain wala boog rendez bu sénégalais danañ koy faral di wax ñun ñu dem ba nangul ko suñ bopp bopp alors ko bu ku koy wax ku nekk rek yaa ngi ci nifaax te yëgoo ko waaw bu fekkee doo respecte rendez-vous rek am nga am nga màndarga ci naafeq ñàkk respecté rendez-vous ak lépp loo xam ne da koy seq ak nit nga ñàkk koo respecté foofu dañ fay dugal tamit boroom xam-xam yi dañ fay dugal nit koo xam ne kenn amul foo ko mën a déterminer boo ko séentoo sow mi ngi jógee penk boo ko jógee séentoo penk mu jógee sow bu la ne ci bunt bi lay jaar ci fenêtre ba lay jaar bu la ne ci fenêtre bi lay jaar ci bunt bi lay jaar respecté wul ay waxam kon ci ci yi lay na na ci li nga ne tamit fa la nifaax di commencé mooy sàggane yàlla sàggane yàlla ci ay jaamoom ñàkka te mu nga commencé ci jaamu yàlla gi gën a mag mooy julli ñàkk respecté julli ndax da ngay gis alquran mu ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون منينا بومي وخ ماندر غاي نافقي القران دافني بوني جولي دون ديكي جولي لودول ني دانيو نياك فخه موتاخ ني جولي تا جولي غا جولي كو تايال لا نكوي داف ناكو في كون كوكو ساكنه يالا لا ولا كيغا خامني صاح دو تودو يالا موك دو تودو يالا دو جولي تي الله صلى الله عليه kooku sàggane yàlla la kooku kon ci màndarga ci li nga xam ne day commencé commencement nifaax la bokk niki noonu tamit ñàkk ragal yàlla moom it ci nifaax la bokk léegi nag ñu ñëw ci lan moo teqale diggante naafeq ak ngistal am na teqale diggante naafeq ak ngistal ndax naafeq moom bépp naafeq rek ngistalkat la waaye nit ki mën na di ngistal ba pare fekk du nekk naa fekk hakaza ndax moom la muy def moo gën a garaaw ngistal ma ngay ngistal waaye la muy def ci xolam la nekk moo tax mu gën a garaaw ndax kii ngistal ngistal gi mën naa bañ a nekk ci xolam doonte sax ngistal lu garaaw la ndax mooy safaanu sellal jëf waaw jëf ji nekkatul sa diggante ak yàlla kese waaye dañ cee dugal keneen ku dul yàlla moo tax ñu tuddee ko as shirkul asxar mooy bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw mooy ngistal ndax ngistal li tax bu dee bokkaale bu mag mooy nit bu bokkaale yàlla bépp jëfam rek ñàkk na ko lépp lim defan ci lu baax rek daanu na léegi moom day commencé waat à zéro waaye bu fekkee ngistal la nag jëf ja nga xam ne moom ngay def julli ga ngay def di ko rafetal ci kanam nit ñi ngir ñu ne kii dafa ragal yàlla wala kii julleem baax na ni muy jullee nangam loolu rek nga ci jublu su boobaa nit ñi apprécier la rek nga ciy am waaye foofa lay yem waaye bu fekkoon nag maanaam ki nga xam ne dafa bokkaale yàlla jaamu leneen lu dul yàlla kooku moom su boobaa jëf yëpp da koy màpp dootu amati dara ci yàlla kon kooku lu mat a bàyyi xel la ki nga xam ne nag day ngistal di ngistal ba jëfam yépp nekk ngistal kooku tamit mën naa dugg ci bokkaale bu mag ngistal yu bari mën naa nekk bokkaale bu mag moo tax eh, imaam ahmad radiallahu ak ibnu maaja yal na leen yàlla gërëm ñu nettali benn xadis jële ko ci sa abi said benn sahaaba mu ne xaraja alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu natazakaru dajjal fa qaala alaa uxbirukum bi ma huwa axwafu alaykum indi min addajjal nee na dañoo toogoon di waxtaan ci masiixu dajal nga xam ne moo war a ñëw mu jug jamono li koo xam ne yàq rek mooy métier masiixu dajjal nag am na ñu ne euh, mën na nekk benn système boo xam ne système u dajjal la te mooy lobby yi ñuy wax am na ñu ne loolu la am na ñu ne déedéet jëmm la joo xam ne day ñëw di woote ne moom mooy yàlla waaye yàlla jox ko ay xar baax ay istidraaj mu ci nax nit ñi di leen dugal ci aw yoonam yoonu caacaay yoonu ndëngate ak yoonu yàq ku ko bañ a topp mu indil la mbugal am na ñu ne mooy loolu saxaaba yi nag euh, abi saïd nee na dañoo toogoon di waxtaan ci dajjal ak danger yi nga xam ne dana ko indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ndax du ma leen wax loo xam ne moom laa gën a ragal ci yéen sax ci dajjal loo xam ne danger bi laa gën a ragal ci danger bi dajjal di indi ñu ne ko ankay yow yonent bi mu ne leen ashirkul xafi loolu mooy bokkaale bu oyof bokkaale bu oyof yonent bi nee na mooy julli maanaam da nga gis waa ji julli di rafetal julli ga di ko taaral ngir lan am na ku koy xool te bëgg na koo ko apprécier julleem gi muy def yonent bi sallallahu alayhi kon noonu la melalee kon bokkaale boo xam ne bu oyof la kon te mooy ngistal hakaza am na beneen xadis bu mu ne li ma gën a ragal ci yéen mooy bokkaale bu ndaw ñu ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne mooy ngistal hakaza donte sax liñ ko waxee sànq ngistal du sippi jëf yëpp waaye bu ko jullit bi dëkkee mën na sippi ay jëfam yëpp ba dootu amati dara ndax lépp lu mu defati rek nit ña ñooy tax melokaanu naafiq ci ni ko alquran waxe ci suratul baqara ak suratul munafiqun bokk na ci yu xaadicuuna allah subhanahu wa taala wal muminin ñoo xam ne toujours dañuy jéem a nax yàlla di jéem a nax julli di maanaam seen lépp ci ay naxe lañ ko teg ak ay pexe lañ ko bëgg a teg donte yàlla sax kenn mënu koo nax koo xam ne xel mi nga yor ba naan da koy nax moo la ko bindal moo la gën a jege sa buumu xol kooku mënoo koo nax bokk na ci seeni màndarga mooy dañuy am ay feebaru xol waxuñ nag feebaru xol boo xam ne docteur mën na ko diagnostiquer gis ko faj ko déedéet feebaru xol boo xam ne ci xol lay nëbb lu demee ni ki feebaru chaque am ñu ne déedéet feebaru riya shak mooy koo xam ne toujours xolam du dal xelam du mos a dal euh, fu mu toll rek day sikki sàkk kooku bokk na ci màndargay naafeq koo xam ne toujours mi ngi sikki sàkk di ñaaw njortu rek kooku war na xoolaat boppam ci naafeq yi la bokk am ñu ne déedéet feebar boobu alquran di wax mi ngi ci namm ngistal beneen ba ci seeni màndarga mooy dañuy yàq maanaam ñu yem ci seen ak feeñal gëm yàlla nëbbu seen ak kéefër waaye teewul dañuy seet kuñ ca yóbbaale di yàq mooy li xew ci jamono ci wàllu lobby yi xew <clears throat> di ko jaarale ci série yi di ko jaarale ci réseaux sociaux yi pour yàq askan yi yàq jikko yi yàq maanaam euh, fexe ba diine l'islam disparaître yàq googu kon ci naafeq yi la bàyyeekoo ndax bëri nañu koy def ay jullit la ñuy wuyoo bokk na ci seeni màndarga mooy képp koo xam ne gis nañ la nga gëm yàlla di góor góorgóorlu ci gëm yàlla ga di jéem a wax dëgg di boo jéem a moytu fen ñoom ab dof lañ lay jàppee dof lañ lay jàppee euh, bu fekkee da ngay jéem a tegu ci siraatul mustaqim di jéem a jubal ñu ne ah kii dof la kii yeewuwul kii du nàndite waaw parce que ñoom dañ jàpp ne ki nga xam ne moo yeewu mooy koo xam ne day fen di wax lu dul dëgg bu situation taxawee mu fen ba génn ci wax lu dul dëgg ba génn ca ñoom jàpp nañ ne kooku daal moo yeewu waaye ki nga xam ne dafa dëgg toujours dëgg rek lay wax euh, lu muy wax ma ngi cay sóor boroomam digganteem ak boroomam di sóor ne dee am na ñu ne kooku moom ab dof la waaye ki nga xam ne mel na ni ñoom ci la ñuy woote te mooy wax lu dul dëgg fen ba génn ci ñu ne kooku nag moo yeewu kon alquran moo leen melal ci loolu bokku na ci seeni màndarga ñoom naafeq yi mooy ñoom ànd ñu faruñoo kenn fu seen intérêt nekk rek fa lañ far annahum mutaraddiduna wa mutazabsibun haythu yakununa maa almuminina taratan wa maa alkafirina taaratan uxra faruñu fenn ilaha ula wa la ilaha ula comme ni ko alquran waxe bokku na ci seeni màndarga mooy toujours rek dañuy reetaan di tuutal di sewal ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di jéem a nekk jullit piir euh, mawdiu suxriya lañ leen lañ bokun defee bokk na ci seeni mandarga toog euh, màndarga naafeq mooy koo xam ne day wat ca la muy fan du dëgg ci ay fen lay waat waaw ci ay fen lay waat ngir ragal ku ko wala ngir ragal ay intérêt di menacé wu waaw ragal alalam wàññeeku ak yu mel noonu bokk na ci seeni mandarga ñoom naafeq yi dafa seen xol ba dëgg dootu ci dootu ci dugg leer dootu ci dugg waaw kenn mënu leen wax dëgg ba ñu nangu ko waaye kenn mënu leen waarit ba mu dugg seen xol hakaza bokk na ci seeni màndarga mooy foo leen gis am na forme boo xam ne dañ koy ràññeekoo ci seen bind ñoom naafeq yi wa izaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum ni ki noonu tamit seen mën a wax ak seenu neex làmmiñ te boo xoolee boo xool lañuy wax du dugg ci xolu kenn ndax wax joo xam ne du dëgg la niki noonu tamit bokk na ci seeni màndarga an al xawfa yakulu waaw maanaam toujours seen xel du dal toujours mi nga am lu ñuy ragal ak lu ñuy moytu bokk na ci seeni màndarga yàlla daf leen a askane ñoo xam ne ay fasix lañ ay kàccoor lañ ay saay-saay ci caay-caay lañ leen askane attee nañ leen loolu noonu bokk na ci seeni màndarga mahrumuuna min al hidaaya ila al xaq yàlla daf leen xañ ñu jub jëm ci dëgg kon kooku mooy màndargaay naafiq yi nga xam ne alquran lim na ko ci suratul munafiqun ak suratul baqara xam naa thème bi day continuer incha allah ajjuma bii di ñëw ndax am na yeneen yoo xam ne pare woon nañ ko te temps bi mayuñu ko in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh